kër xasida bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi maanaam université bu Touba tey jii ci gaawu dëppoog le 27 juin 2020 xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñëw fii ngir nemmeeku ko loolee nekk lool ñi nga xam ne ñoo di waa daara Hizbut Tarqiyyah waajal nañ ko bu baax a baax ci njàngum alxuraanul karim ak xasida ci njiitalul seen jëwrin di sëriñ atu Diagne sëriñ bi bi muy dugg si ci chance bi ay xasida lañ ko gàttandoo yaa maalikal mulki yaa man jalal xawadim iram jami alwara sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci yeneeni kilifa bi ñu agsee ki nga xam ne moo di aatu Atou Diagne ak mbooleem techniciens yi nga xam ne ñoom la àndal liggéeyub këru xasida gi leeral nañ sëñ bi li nga xam ne moom moo jëm ci liggéey bu ni mel fiñ toll ci liggéey bi yéene giñ ci am ak professionnalisme bi nga xam ne moom lañ ci fas ne def ba liggéey ko liggéey bu mucc ayib boo xam ne dana méngoog jamono waaye méngoo xasida yi nga xam ne moom lañ fi fas yéene def leeral yooyu sëriñ atu Diagne mi ngi ko amal ci teewaayuk sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mi nga xam ne mu ngi àndoon ak sëriñ bi ak sëriñ Ahmadou Badawi mi nga xamante ni moom moo jiite lépp lu jëm ci wàllum njàng mi ci complex Cheikh Ahmadul Xadim bi ginnaaw bi sëriñ bi visité chantier bi ba pare am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fa. bi nee du ay wax sax yu ñu war wax. ay wax la suñu ay wax la suñu diggante ak. bu fekkoon ay kàddu la ay wax la yoo xam ne digganteem ak taalibe yi kon sëñ Bas mi ngi nii sëñ Ahmadou yi ñu ngi nii kon baax na <laughs> loolu moom kon defe naa sant nañ bu baax li ñu wax naan wa fil qalbi min ridwanihi maa ukinnuhoo danii nan bii inn sudóor a xubóoru sant nañu mbàkke li nga jot a def doy na sëkk Oh. <laughs> waaw. léegi waaw man li ma ciy dolli. di gannaaw siyaare bi ak cant gi ak nuyoo bu sell bu ñuy teg ci loxoom euh, euh, mu jàll ba ci bokki boppam yi nga xam ne ñoom la àndal ñu koy seede ci liggéey bi ba ci sama jëwriñ ji ñuy wax sëñ Moustapha Diatara ak ñi ñu àndal ñëpp ak waa kër gi euh, dafa am lu ñu bëgg te mbir ab sëriñ dafa nekk lu lu jafe bu ko ab sëriñ jiitu woon sax booy nettali li ko ko la nga seqoon ak moom day day fekk nga war a soxla woon ñu yokkal la ko ndax li sëñ bi yor du jeex am na liggéey boo xam ne bañ ko liggéeyalee sëñ Abdou Lahad ba mu yeggal dafa xëy si suba teel woo ñu ñu jàkkaarloog moom caay nu raxmati mu ne ma ndax xam nga ni seen liggéey bi suuf du ko lekk ma ne ah loolu de dara mu ma ñemewu ko de bu ñu ko tojoon ba tabax fi leneen yéenay dekkeendoo daal ne seen maam yi jëkk jëkk ci kaw suuf dana leen di fay te du yëngal seen sët yi mujj ci kaw suuf dana leen di fay te du ko te du ko yëngal Mbàkke loolu lañ bëgg ko ful ku ko yeesal defal ñu ci loo xam ne dana doon ñaar wàllug sëñ Tuubaa gi yee sëñ du waxee ak caabi yi nga xam ne sëñ bi jox na la ko wommat la ba ci baram mun la lii yaa ko moom bokkoo ko kenn tijjil te jox nu ci jërëjëf loolu bu amul lenn luñ ciy dolli jërëjëf. ci gën bëgg rek sëñ bi nee na li ci gën a am solo li mu bëgg rek li mu bëgg wax rek. moo di lépp sëriñ be moo di lépp sëriñ bee. ci moom la jóge ci moom lay dellu. la jóge ci moom lay dellu. ndax am na lu mu xam ci boppam moom. man xam na ne xaw ma moom xam na ne. Euh, moom jëmmi boppam ji nee na xamul waaw. waaye nag xam doy waaye moom li mu xam doy na ko. alhamdulilah man wutuma na moom day wutu la xam dara dul sëriñ bi. ak diggam ak boromam. ak diggam ak boromam. ak diggam yonent bi. sëriñ bi foofu rek foofu rek la nekk. sëriñ bi foofu rek la nekk. mënu maa jéem ci jéem lu ma bëgg xam xam naa xam naa xam ko waaye mënu maa jéem a jéem a xam dara lu dul loolu. na moom nag mënta jéem a xam dara lu dul loolu. sant na ci yàlla sunu borom bu baax. damay wax ni man ci tawféexi sëriñ bi rek lay dox. nee na moom de dafay wax ne ci tawféexi sëriñ bi rek lay dox. danaa di xelale da dana dana di xelale rek. nee na waaye xamul dara waaye xelale googu nag wóor na ko ne tawféexi sëñ Tuubaa rek la moo koy wommat noonu rek la demee. ba ci ba ci mbir mii. bi xel nekkee eh, eh, xelam nekkee ci defal xasaay di kër. boo toll woon nañ ci wut boobu gone yi toll nañ ci wut bibliothèque. ci kër ga. ci kër ga. ndax lu demee noonu. ma ànd ci ba ci sama xel nekkee. ba ci xelam nekkee. xalaat loolu ne kon mën naa loola mën naa nekk. mu xalaat ne loolee mën naa nekk. loolee. loolee. gone yi seen devis moom ñoom gone yi seen devis bi ñu waxoon mooy 40 millions. ci kaw walla sama digganteeg yéen nag. moom ci digganteem ak nun nag. bi liggéey bi mu xalaatee ñu liggéey ko. yéen maa ngi yéen seq. ñun dafa jàpp ne moom ak ñun ñoo ko war a seq. bi loolu amee nag. bi loolu amee nag. ma xel sama xel jëm ci liggéey bi bi ñuy directé. xelam nekk ci liggéey bi. ginnaaw gone yi ñu ngi tolloon ci 40 millions. ginnaaw gone ñu ngi toll woon ci 40 millions. wàllu économie ak yëf xam ne jëf nite rek la. ci wàllu économie rek ak jëf joo xam ne jëfi nite rek la. leen ni ngeen ci dolli rek mu wax leen ne nañ ci dolli 20 millions muy 60 millions. loolu may na leen ko ci bibliothèque bi. bi ñu doxee nag. bi ñu doxee nag. ma gis sëñ Atou ni ngeen faboo. mu gis sëñ Atou ni ni ñu faboo ci xeet ci mbir mi. ni ñu faboo ci mbir mi. ak xalaat ju rëy ji xalaat ju xóot ji. ak xalaat ju rëy ji ak xalaat ju xóot ji. xalaat ju sore ji ak xalaat ju sore ji. lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek. lépp dellu ci fonk sëriñ bi rek. loolu moo tax ñu déggoo. moo tax loolu moo tax ñu déggoo. alhamdulilah ndax dama dama ne ginnaaw nag léegi économie rek ci la ñu wute. ndax dafa ne ginnaaw loolee économie rek ci lañu ñu wute. waaye fonkeel gi moom noo noo noo fa daje. waaye fonkeel gi moom noo ci daje. fonkeel gi nag. fon fonkeel gi nag na kon fonkeel gi nag moom na mu ko gisee. li ma ci jublu woon. li mu ci jublu woon. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. mooy dajale mbindum sëriñ bi rek. loolu. loolu fañ koy def. fañ koy def bu ko defoon or mbaa itam. bu ko defoon or mbaa jamaa itam. jar ko. jar ko ëpp. moo tax ma déggoo ci yéen. loolu moo tax mu déggoo ceeg noonu. te am na meneen mbir ci feeñ nag. te am na meneen mbir mu ci feeñ nag. kon liggéey bii borom mel na ne borom xam na ne noo noo noo noo ci nekkal. dafa mel ni liggéey bii boroom xam na ne noo ko ci nekkal. dañ tuddee jàngukaay bi. bañ tuddee jàngukaay bi. lii xalaatuñ ko ci woon. lii xalaatuñ ko ci woon. waaye moom nag. waaye nekkata moom nag. moo wane ne mënuñu cee ñàkk feeñ yéen. wane na ne mënuñu cee ñàkk a feeñ ñun. moom rek indi moom rek indi lii. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke yàlla na nga fi yàgg te wér jërëjëf Mbacke waaw de loolu de sant rek doy na sëkk. ndax ndax ndax ndax bu doon lii képp ci lii itam mu doy sëkk. nee na bu bi te suñu yitte jëpp ñu daje mu daje ci lii rek mu doy sëkk. waaye xereñ ci nekk. waaye xereñ xikma ma bi ci nekk. ñu jëkk xalaat université ba noppi. ba lépp noppi. xalaat ji doog dikk. loolu mooy sëriñ moom moom moom borom liggéey bi moo moo moo man am moo wane moo namm ne mënu leen ñàkk a feeñ ci mooy wane ne borom liggéey bi moo namm ne. mënunoo ñàkk feeñ ci liggéeyam bi ci daaraam ji. lor dong la ko gisee jërëjëf Mbacke. sëñ sëñ Bas nee na sëñ Bas sëñ Ahmadou Badawi bokk yi mi ngi leen koy seeral yéen ñii. waaw ak ak sëñ Moussa Diatara. jërëjëf waaye tawfeex sëñ bi rek laay dox. waaw lii nii ma kaddu yi jërëjëf Mbacke. sëñ sëñ bi ñii. Hmm. li li liñ ci fas yéenee doxal. Hmm. mooy bëgg nañu mu mel ni pilim bu mu jël ci loxo. Hmm. def ko muy étiquette. waaw muy signature. wala muy temb boo xam ne eh, ku ñëw. fii ba àdduna yam dina xam ne itte jooju. yaa yaa yaa ñu jërëjëf Mbacke ah, jërëjëf <laughs> jërëjëf waaw ah, jërëjëf Mbacke waaw ah, ndeysaan waaw lii mooy mooy kàddu yo ma waxoon Sëñ Abdou sax daal ne wa fil qalbi min ridwanihi maa ukinnuhu danii nan bihi inna sudóora xubóoru tey jii ñun mënuñoo wax dara ndax lu ñu wax dina mel ni toq ndox ci géej ci li ñu ëmbal sëriñ bi ci cant waaye yàggaal na nga fi yàgg te wér Mbacke yàlla nga fi yàgg te wér ak sa bokk yu baax yii waaw nga gis fi tey nga duggee ba fi nga génn luyewuñu àbbuñu loo fi gis bu neexoon suba nga jaay ko may waaw <laughs> jërëjëf kon de xanaa nu fu waay ne na tàllal loxoom te teewlu bu baax waaw sëñ bi ñaan jërëjëf amit amiin